te bu ñëwee safar Balla Gaye wootee lépp mu dëgmal ko ki nga xamante mooy ko tedd ki dañoo fa ne mbëri ay dof la mais duñu ay dof duñu am jëfan ko sëñ Touba <laughs> ginnaaw ba dem yow jërëjëf sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall ñu sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax comme que fekke waat nañ ko ci jàmm ak salaam te kenn manqué wu yàlla nañ ko yàgg fekkee te yàgg kaa def di ñaanal yéen ñëpp yéen yàlla defal leen jàmm. Mm-hmm. seen liggéey bi ngeen nekk. ndax man kuy wax lu rafet rek mbaa ngay jël ku kuy wax lu rafet rek daf may neex daf may kontaan ci loolu. dëgg la li dafa li ma sama loxo balaa ma la gaañ ok. xool caméra déggoo ma de. Uh-huh. lii yaa ngi wax ay wax de. kuy wax lu rafet kuy wax lu rafet. Mm-hmm. wala ngay jël kuy wax luy rafet. dëgg la danga may neex. yaa ko moom. Mm-hmm. Ah, moo ko moomoon waaye moomatu ko. waaw kay. maa ngi defar moom léegi. Uh-huh. mooy doomu Serigne Ndiaye bi. Makan Makan. at naar bi. Ah, naar faal saytaane lan léegi naar ah. ñooñu waaw yéen ñi lépp tubaarikàlla macha allah léegi nekkatu leen ay saytaane dëgg la man baax ngeen doon rafet di jël lu baax ngeen di jël yow sax euh, ah, lu baax nga doon jël waaye léeg-léeg ma gis na nga doxale waaye damay gis nga dangay ngay rafetal waaw saxal ci rafetal saxal ci rafetal bi mm-hmm. di kontaan ci yéen mm-hmm. ngeen fekk ma fii ci golf mm-hmm. kër Balla Gaye 2 dëgg son ma fekkee doon ne ma accam déedéet soon ma fekkee. Mhm. doon na ma. liiru jaan loo fiy def dëgg la. ndax soon ma fekkee walla maa ngi sama kër ngeen ma fekk. dëgg la. sama rakk la. Mhm. sama frère. dëgg la wane nga di kontaan ci yéen bu baax a baax. di ci màggal gi mhm. ñu jub euh, dëgmal. ñu nekk ci weeru safar. te xam ngeen tey safar dafa bari lool. dëgg la ñëppay safar fi mu ne. toogu ma mënu ma toog. dëgg la. ndax euh, bëgg naa teewal ñu ne léeg-léeg nga dégg nii noonu lu tax doo safar. Mm. ay ree daf may jàpp. dama ne xam ni man. Euh, euh, li ma war a def. samay rakk ma koy defal. walaay dëgg la. Mm-hmm. tey man su ma xewle woon may safar. Mm. keneen di safar damay bàyyi sama safar dem ci safar. dëgg la ndax bëgguma ko mer. dëgg la parce que yaay mëni maa nag. Mm-hmm. safar maam góor laa jóge ni maam góor taalibe sëñ Babacar góor yombul góor yombul tisi liiru suufu nga ma war a faa dem te waxoo ma ko liiru daaw woowoon nga ñu de waaw daaw woowoon nga ma liiru waaw d'accord euh, xam nga tey li mu tombe safar Balla Gaye bi dëgg la fa jóge nii léegi-léegi tamit dafay safar waaw mhm. mu def duna guléet kenn duna guléet mhm. taalibe sëriñ Touba la mhm. taalibe sëñ Bas Baara te yàgg na koo def dëgg tey mu tëral ñetti gàtt séddale lépp jaamu yàlla yi. Mhm. def ay berndeel. dëgg la. def ay berndeel. Mhm. kon nag nañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. Mhm. ku yebu ne ko jàkk te bañ koo piis. taalibe sëriñ tuubaa la. dëgg la. taalibe sëriñ Touba nag. soo ko fekkee ci yoonu sëriñ tuubaa muy liggéeyal sëñ bi. ah ku yebu ne nga ko jàkk te bañ koo piis. waaw. nu mu mel sëñ bee nu mu am sëñ bee hmm. ñun nu nu mel sëñ bee lu nu am sëñ bee kon nag sant yàlla yàlla nañ ko yàgg a teewee te safoor yi di ñaanal safoor yi ne leen hmm. dañuy daw ndànk dal ndànk dal ndànk dañoo jëm ci màggal hmm. ci màggal gi nu jëm nag ah dañoo dem pour sàkku ji ay ñaan ak ngërëm ak ngërëm dëgg la demuñu fa pour jaay taar mhm. demuñu fa pour jaay taar dañoo dem pour sàkku ji dëgg ñaan dañoo war a dem pour toroxlu. Hmm. dëgg la. sooy dem Touba da nga ko war a jàpp ni sooy dem Màkka. dëgg la Màkka da ngay toroxlu sellal. Hmm. dëgg la sol euh, lu rafet lu simple. dëgg la toroxlu. <laughs> waaye nekk fay sol yi jasneer yeeg. waaw di sànceeku sol ku summeek. di xool ci jongoma jeeg di xool ci jongoma di jo xale yu xale yu góor yi xale yu jigéen ñi ñëpp laa wax. Hmm. am na ñoo xam ne xale xamu jigéen ñoo xam dañuy dem pour pour jaayu ji. waaw. am góor ñoo xam dañuy dem pour wuti soxna. dëgg la. màggal moo leen yóbbu. dëgg la suñu demee nañ toroxlu nga gis kuy dem màggal di yóbbu ay wëlis. waaw wëlis yére. solo ko summi rek. Mm. loolu baaxul mais <laughs> kuy dem concert. waa bu loolu baaxul. <laughs> abu ah nan ko rafetal. dëgg la de. dañuy dem pour sàkku ci ñaan. Mm-hmm. su tiwaawoon jotee ñu defee ko noonu. dëgg la Ndiassane ñu defee ko noonu. dëgg la tey ba ñu defee ko noonu. dëgg la kër maam li maamu. dëgg la Bokkunta Ndiassane. Mm-hmm. Cenaba. Mm-hmm. Laayeen. lépp benn la. dëgg la ndax sëñ bi rek moo ñu yor. dëgg la ak yàlla ak dëgg la xalifa diine yëpp yàlla na fi yàgg tawér sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg tawér sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg tawér amiin moo di ma euh, sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla na fi yàgg tawér sëñ Abdou Karim amiin waay yàlla na fi yàgg tawér dëgg la xalifa Baye Fall yi mhm. yàlla na fi yàgg tawér kooku mooy sëriñu Adama Seen waaw mooy sunu sëriñ sëriñu Adama Seen dëgg la fii la dëgg Géejawaay Karim Mbacke dëgg mhm. sa patron ba ndeysaan sëñ Fallou Seck Touba dëgg la sëñ Abdou Karim loo koy naxee naxee ko sëñ Abdou Karim sëñ Fallou Seck mm. loo koy naxee naxee ko sëñ at sëñ Seen moom dëgg la loo koy naxee naxee la sëñ Abdou mm. boo koy nax boo koy naxee ah. Ah. maam Cheikh Rahima Fall waaw te da ngaa murite loolu liiru waaw ñun ay taalibe la da nga def laxasaay li waaw mooy suñu cër sànni njël ci kaw dañoo nekk ci wàccaay mm-hmm. dañoo dañoo dañoo nekk ci dañoo nekk ci ay wàccaay mm-hmm. wàccaayu màggal gi ñu nekk ci 18 safar mm-hmm. ñun dañuy toroxlu dëgg la ñoo sol ay jasineer. dëgg la de. waaye dañuy liggéeyal am nga ko de dëgg la. sànq da ma wax ne sànq dama ne la dafa am ku ma ne woon. Mhm. liiru. Mhm. sa safar yow kañ la. waaw ma ne ko man su sama rakk yi suñu safar rek mel na safar naa ndax taaliba ndax man mii ni nga may gis nii. dëgg la barki Cheikh Ahmadou Bamba. billaahi mhm. wallaahi wa lu ma am ci màggal gi la jëm. waay hmm? ñi nga xam ne mënumaa lim seen tur maa leen di jox paasu màggal. barki Serigne Fallou Mbacké. ndeysaan billaahi wallaahi taay maa leen jox paasu màggal. ndeysaan. waa léegi nag tey yooyu may def noonu. tey mm-hmm, mm-hmm. tey su xale yi safaree sama rakk yi di safar. dëgg la mel ni damaa safar. dëgg la benn la rek. dëgg la te ñu dem euh, Touba. dañuy dem pour liggéeyal sëñ bi. dëgg la kon yàlla na nu yàlla defal jàmm. amiin waay ci réew mi. yàlla na fi jàmm sax. lu nu ñaan ci màggal gi. Mm-hmm. ak ci weeru safar bi yàlla na ko yàlla nangu. dañuy wax lu rafet tey def lu rafet. di yéenante jàmm. di bàyyi féewale yi. Hmm. di toj ay dëkk di jaxase ay dëkk. du yoon de. du yoon loolu baaxul. ab dëkk kenn ko toj. kenn warta toj ab dëkk. dëgg la de géej waaye nag kenn mënu koo toj. ah am na ñaar ah, xale am na ah, am na ñaar xale yu koy yu fi nekk di ah. sant ak xeer de. commencé toj de. géej waaye kenn mënu koo koo jaxase. kenn mënu koo toj. lii raam nag ci ñag bi la jëm de. waa gis nga déggoo li mu la wax. Hmm. samay rakk dañoo màgg. waaw man kilifa laa. Hmm. dëgg la. ah ñëpp sumay rakk lan am na yoo xam ne ay xale suñ koy wax wala ñu koy def. waaw dama leen di bàyyi ak xale yi. xale yi ñuy waaw seen morom yi. waaw man waxuma benn xale bàyyi naa la ak yàlla. déedéet barke Serigne Fallou ndax la xale bu ma tooñ ma dajeeg yow ñu jàkkaarloo nga tooñ ma ma summi sama yëre teg fa la ñu jàkkaarloo ñu jëflante. barke Serigne Fallou non non sama rek du ko nangu waaye man laax nii am naa. fit boobu am naa non. dëgg la comprendre nga. Mm-hmm. am naa. am naa fit bi am naa sañ-sañ du ma ragal. dëgg la géej waay ragal dëkk fi mm. géejawaay ragal dëkku fi géejawaay ay ragal dëkku fi géejawaay ay jàmbaara fi dëkk ay gaynde ñoo fi dëkk ay bañkat ñoo fi dëkk ay kilifa ñoo fi dëkk ay champion ñoo fi dëkk géejawaay il a tout il a a tout yaa bi mbang géejawaay il a tout bàyyi loolu barki Sëriñ Bamba Mbak géejawaay il a tout away il a tout tey soo dee géejawaay su dee champion yi fi lan fekk Balla Gaye ba muy am vingt cinq ans la ñu indi roi des arènes dëgg ñu koy tiitaroo di ko ndamoo dëgg la te jamono yooyu ki fi nekkoon hmm. koo ko wax mu ne ay conseil laa soxla war foo jaara sa bopp hmm. di wutub xarit waaw ah, di wutub xarit dëgg la de ñi naan sama nijaay la moom dawul xarit déedéet mu ñëw kooku quinze ans la toog daanu Balla Gaye ñëw daan ko tey euh, ñi fi nekk roi des arènes yëpp dañoo war a sant Balla Gaye ñi roi des arènes jaar seen loxo yëpp dañoo war a sant Balla Gaye ndax tey jii hmm. su woon Balla ah ñoom est-ce que dinañ ci jot déedéet mukk duñ si jot déedéet kon na dañ ko war a sant di ko ñaanal mm. yàlla yàggal ko fi te may ko wér doñ taggal Balla ni nga daa tagge ba ànd yëpp yëpp xam soo nee Balla Gaye dama naan la kookoy chéri buri bàcc li bàyyi Mouhamed bàyyi Serigne Saliou mm. Mm. magi saa kees rakku liiru jaan kookoy Balla Gaye de empereur weeru des salaires kan mooy empereur bi loolu du question. day am problème mais liiru liiru yaan kaddu gi nee na xam fu ma dugg moom tuuti. parce que moom mooy le monument de Guédiawaye. buñ gisee barki démb la da guerre toog si émission ba. Mm-hmm. am communication ba mu mm-hmm. na seen diggante ñoom ñaar. loolu mm-hmm. ma la wax saytaane nga. non ah, non <laughs> ndax ah. dama la ko doon wax. dëgg la du ma saytaane nga léegi nekkatoo la da guerre noonu mu waxee war a waxee ndax xamul dëgg la mook Balla Gaye ñoo bokk seen Casamance. dama gis ne ñoo bëggante ñoom ñaar. ñoo bokk seen fara bara mhm. gis nga euh, diggante boobu ku ciy wax. dëgg la. na nga xam loo wax. Mhm. ndax euh, tey Balla Gaye laaj nañ ko ci ba ko laaj dégg nga lim wax la dëggee barki de mondial. laaj nañ ko ci dégg nga lim ci wax. kon nag ku ciy wax na nga wax loo xam. problème amut. problème amul. dëgg la. ñàkk waxtaan la rek. waaw waaye problème amul. dëgg la de. ñu ciy wax nag. di jaxase. waaw ak di ruumandaat ñi nga xam dëkkuñu géejaway. waaw. suñu sañoon jàmm du am géejawaay. billaahi kon nag je arrête. waay ñooñu laay waxal je arrête. ñi nga xam dëkkuñu géejawaay. ñan la ñu bootu ci ginnaaw. ñan la booy su ma bëgg ñoo loolu sa yoon nekku ci. bis mu wax seen tur jotee. waaw wax du yaa ma koy wax. non non arrête. est ce que dégg nga ma ma la wax. kenn dugg yaa ngi may déglu abu. Mhm. ñi nga xam dëkkuñu géejawaay bëgg a jaxase géejawaay. dëgg la loolu du fi amee du ma ko seetaan. dëgg la liiru man awma lu may tiit. dëgg la je peur pas. Ah. mu ne barki Serigne Bamba Mbacke je peur pas. billahi wallahi taalaay loolu laa bëgg ñooñu. je peur pas. loolu laa bëgg. loolu laa bëgg ñu arrêté ñooñu. dëgg la dëgg la bëgg a jaxase géejawaay googu ñu bëgg a jaxase géejawaay nan ko bàyyi. ñu ngi koy yàq ko jaxase mënuñu ko yàq. dëgg la mm. tuuti nañ ci yàqu ci. ndax ay kilifa dañ fee jaar dañ fee ñaan. waaw dëgg la géejawaay dañ ko léemu. Ah. rek sëñ Bamba. barki sëriñ Bamba Mbàkke da ngeen a xamul rek. ku ay xale ngeen. ay xale ngeen. ma ne la loolu bis mu wax jotee. dinaa ko wax damaa bëgg. damaa bëgg. géejaway. Hmm. ku yebu ne ko jàkk. te bañ koo piis bañ koo piis. piis Karim Mbakke jaar na fi de ndax sëñ Abdou Karim fii la dëkkoon. daara jàngi fi daara jàngi fi. ay kilifa yu baax ñoo fi fi jaar ñoo fi ñaan. dëgg kon nag nan bàyyi affaire yu jaxase ñuy def mm. diggante Lac de Guiers ak Balla ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk seen Casamance am na leen yoo xam du débat dëgg la yu am na yoo xam du débat mm. dëgg la nan bàyyi ci débat boobu chaque jour ñu ciy wax débat du ciw débat nan bàyyi débat boobu mais est-ce que nekkul mooy kii dérangé parce que saa bu daanee coow bari ci loolu yàgg na parce que mooy l'ampleur rek waaw la <laughs> wax Balla champion la ndaanaan la mhm. borom jom la dëgg la Lac la Lac de Guiers benn defet la am. dëgg la. fii ay champion dafa ana